ah dégg ngeen bànneex bu rëy boobu de Cheikh Seydi Alhaaji Malick ibnu Aziz Maodo dugal ci xolu nit yi léegi nag maa ngi jox ki nu tuddee borom rawdu bii kënu tuddee woon inspecteur tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tijani di Alaaji Mansour maa ngi jox nag Sidi Boubacar ibnu Alaaji Mansour euh, bokki yéen ñëpp Sidi Boubacar mi asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ñi ngi àndandoo ak yéen di sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nit du ñàkk lu mu sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ne ñi ngi ndokkeel sëriñ bi di ndokkeel njaboot gi di ndokkeelit mbokki taalibe yi ñi fi teew ñépp ne wolof yéen nag yéenay wax naan ndaje daal boo ca amee mag am ca rak war ngaa mën a noppalu waaye tey dégg nañu fi loo xam ni ku fi wa jóge ku fi jóge def lu wuuteeg loolu def lu wuuteeg loolu wala nga jàpp leneen wala yow nga jàpp leneen loola la neex loolee moo la neex waaye bokk yi fi daje waaye daal bokk yi fi daje waxoon naa ko fi daaw waxoon na ko fii daaw ni ñiy seetaan si ni ñiy seetaan si ak ñiy seet si ak ñiy seet si ku doon seetaan si ku doon seetaan si gis nga lu fees sa gis nga lu fees sa bët. wala nga dégg lu fees sag dégg. wala nga dégg lu fees sa dégg. boo dee seet si. boo doo seet si it. la nga bëggoon a gis nekku fi. la nga bëggoon a gis nekku fi. mbir mii dafa am boroom. mbir mii dafa am boroom. boroom mooy suñu boroom. boroom mooy suñu boroom. mu wóolu nit teg ko ci loxoom. mu wóolu nit teg ko ci loxoom. moo fi bàyyi lii. moo fi bàyyi lii. njaboot gi mu fi bàyyi ak njaboot gi mu fi bàyyi woon. mbir mi diis na waaye nag woyof na tooy ndax yàlla dafay wax ni laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaaha ku yam fi nga war a yam doo jàmbat dara waaye ku yàlla yan nga wut sa yenu bopp yow teg ca fokk nga diis te ku diis jàmbat kon ñi ngi gërëm Cheikh Al Hadj si papa si bu baax ci lii mu wax Pape Malick ci nii mu waxe ne dalal nga xel yi de te wax ja ma nga jóge ca Cheikh na Ahmed Tijani ne Moulay Abdoul Aziz mii nag gor la jullit la ku baax la ku nangu la fii lu ne def na ko fi képpal na la lu nit war a yenu war a yenu boole na la ak loola boole na yow ak loola yenu la fa tabaarakallahu ne Moulay Abdul Aziz mi yàlla bu yaakaar tas te yaakaar du tas nag yàlla bu cat tabbi ne li gën a jafe mooy liggéeyal yàlla te ci lañu la xam moom lañ la seedeel léegi ba kilifa gi di suñu xalifa nekk ci sunu kanam renouveler confiance am ci yow mii confiance bi nag Sidou Bakar ne yàgg na waaye ah mbir mi am na yor borom de borom nag ni mu ko bëggee ñi ko fi ko fi wuutu woon mu samp leen fi doxalal nañu ko ni mu ko bëggee fa tabaarakallahu moom la ñuy jariñoo nii lii maam Malick wax ni da ngeen di ziyaare si waaye ñun it dañ leen di ziyaar nettali na rek ci biir waxam ni Serigne Cheikh nee na nit ñi bul xeeb kenn léeg-léeg nga gis ci koo xam ni moo lay gën a fagg waaye nag moo lay gën ca yàlla nag te mbooloo mi pare nañu yàlla baaxal yàlla nag dafay nëbb léppam mooy li Pape Malick wax sànq rek ni asraar buñ ko dee waxtaane ci pénc dootul asraar ne Cheikh El Hadj Malick si Maodo ni ko ni la du asraar la ashraar la alhamdulilahi alamin yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq ne moom loolu rek la ci amoon tey ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole nangul yàlla na yàlla nangul ñépp mboolem ku fi teew booy dellu sag dellu yàlla na gën sag dikk bi jaahi nabil Mustafa wasalaamu aleykum wa rahmatullah